te un waxtaan bi moom ci faiblesse yi la jëm ci dëgg yi faiblesse yi ak menaces lan mooy premier lan mooy faiblesse léegi maanaam li nga xam ne lii vraiment fu ñu nasaxee dëgg Sénégal mooy ni ñuy jalgatee sartu réew mi constitution bi ndeyu sartu réew presque Sénégal constitution bi morso tayukaay la rek da ngay ñëw rek tey defar sa cere bàyyi bu keneen ñëwee tey boo daggee fii tey suba nga changé loolu dinaa ci ñëw dans le détail kooku mooy première faiblesse ñaareelu faiblesse mooy dañu toll ci réew moo xam ne bii dafa xiif xiif jàmm xiif kaaraange xiif doxal yoon réew nag bu tolloo foofu ah dañuy def attention parce que day am menace sur la paix menace sur la sécurité menace sur la justice foofu le Sénégal toll dinaa ko démontrer tout à l'heure kooku moy ñaareelu faiblesse limay wax nak bu amna ci lo xamné li amul wala gisu leen ko ñu ne peut-être euh, ñu ñu signaler mako rek <laughs> ma xamné ne dama jub mais dama wax damay wax lo xamné ñepp koy dund Sénégal jox ci ay exemple ñettel bi moy ñu njaaj yi ñuy gis ci jogante manam absence de transparence absence d'intégrité absence surtout de stabilité ci processus électoral bi luy élection hein boko ko Sénégal rek ñu ku nekk mu ngi ragal sa morom mu ngi ragal ñu mu am wala mu am ay faiblesse bu élection dafa dispositif bi naka dafa dafa ci calendrier bi lèr ci ni organiser faiblesse Sénégal benen bi ndaw ñi chômage des jeunes chômage des jeunes conséquences ah dafa graw graw bo xamné surtout pays bo xamné population bi population jeune la nga xamné âge médian bi euh, fukki at la ak juróom ñent âge médian moy bo rangale won ñep Sénégal en fonction at ñu rang boo ci digg bi 19 ans ngay def donc population bu jeune la donc ñooñu buñu ligéyul ah wax dëgg c'est une menace extrêmement importante pour le pays pour la stabilité du pays amna lo loo leen ci gis gis ngeen mbëkk mi dina ci dellu pour développer ko loolu dafa am. beneen problème bi ñu am ñeenteelu problème bi mu juróomeelu problème bi mooy politique Sénégal dañu toll ci politique gu gis ci sa bopp maanaam politique boo xam ne bii daal presque métier lañ ko def waaw politique moom la ñuy wax politique politicienne waaw nga xam ne boo ci duggee rek say affaire bopp ngay jéem a régler loolu nekk na dem nañu ba léegi mu nekk problème bu rëy rëy dinaa leen wax naka la nekkee problème ci réew réew bu ñu demee ba politique xam ne ci la ñuy tànn ñi nga xam ne ñoo war a jiite réew mi ñu jox leen suñu alal jox leen suñu kàddu ñu jël def ko presque euh, euh, jumtukaay bu ñuy amee alal wala bu ñuy dundee wala bu ñuy amee promotion loolu ça devient un vrai problème moom mooy juróomeelu dëgg bi nga xam ne bii mu ngi ci tànku Sénégal li may wax nag ci dëgg dëgg yi dëgg yi dëgg yi moom buñ ko buñ ko di wekkiwul ah bu ñu sekkiwul dëgg yi moom bu ñu sonal suñu bopp duñ dem fenn parce que dañuy toll rek foo toll yaa ngi yaa ngi gaññi rek parce que dëj dëj moom du balaate waaw surtout boo boo dëkk boo ko amee sol dàll <laughs> nag teg ko ci boo doo mun a sol dàll boo solee dàll day gën a day gën a dugg beneen bi mooy luubal waaw corruption waaw ruubal presque léegi euh, mun naa wax sax du du du du du du dëkk bu ñu def suñu tànk dafa mel ni góom la léegi waaw góom góom boo xam ne bii euh, góom bu doy waar ci waxtaan loolu aussi lu ñu réglé ku ko réglé moom wala

lu mu développé développé bu ñàkkee worma bu fekkee ñàkk worma dafa nekk ci réew mi ah dara du dem kanam donc loolu moom mooy li nga xam ne ñun moom la ñu yaakaar ne moom mooy euh, dëgg yi nga xam ne mooy Sénégal